mooy filière oignon soble si ci Sénégal yéene kaay bi ne problème dong la journal baa ngay fàttali ni ci juróom benn weer weeri njëkk ci atum 2023 bi njëgu soble si nuy bàyyee fii ak bay jóge ca bitim réew lépp a yokk yéene kaay bi ne juillet moom moo jël raw gàddu gi ndax fa la soble jógee ci juróom ñett fukk ci kilo bi yegg ba ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk la ca gën a doy waar nag yéene bi nee na mooy bu ñu bayee ba nuppi ñaar fukk ak juróom jàpp fan weer ca lanu góob lépp ci yàqu lay mujj ànd a am ci groupe bi lese ko ci la xëy ne ñu tàqalikoo googa mën naa indi gàllankoor yu bare bari waaye fii ñu cay àgg Pastef moom pattal nu mayee taxawu Sénégal taxaw di xaar waaye di waajal boppam ci lu ne yéenekaay bi ne ku maywul danañu andi ay coppite ca bureau ba ak ca commission ya waaye fi ñu war a indi coppite dëgg forum civil ma nga naan ci booba la yéenekaay mooy ne ñuy doxalee àq yelleef doomu aadama ci réew mi nii la Birahim Seck ki ñooñam ñaawloo ay carton rouge ci biir vox populi jébbal ko état bu sénégal carton rouge it jébbal nanu ko Senelec ndax yéenekaay bi mi ngi ñu yëgal ab pétition bu ay gaay sumb ngir ñaawlu facture yu cher yi boobale pétition vox populi ne daanu ko yóbbu ca direction générale bu Senelec kalaame ji ko itam ca médiateur de la république booba jamono ministre bi ñu dénk wàllu communication ni Moussa Bokar Thiam maa ngay tegal ay charte tiktok ngir ñu delsi ci sénégal wax leen li réew mi bëgg ak li muy bañ l'info ne na ci lam bëgg te sàkk ko ci tiktok moom ministre Moussa Bokar Thiam mooy ñu awale leer ci seeni gët weneen càkkutéef ba mooy ñu monétiser ko maanaam képp ku dugal ab vidéo tiktok fii ci sénégal lu ko nit ñi gën a xool tiktok gën laa fay na nu koy defalee ñeneen ca yeneeni réew bala ñoo jàll ci beneen yéenekaay mam boy jaawo ci l'info ma nga naan lépp lu mu def mbaa mu wax ko rek assumé na ko ragalut te réccuwu ca lenn ci biir Sud Quotidien moom mam boy ma nga naan gisul dara lu aay ci am bëgg-bëgg ambition daal mam boy jaawo nee na du deli du kirim loolaa waral mu samp ndëndam jëm yéenekaay critique nee na dana wax fan la bëgg a jëme réew mi bu nu ko falee waaye député yenu fal ci turu Benno Bokk Yaakaar critique nee na Aly Ngouille Ndiaye ma nga cay tàmbalee roñ Amadou Ba moom amul électorat bu ko mën a may mu roñ ndam li ngoonuk ñaar fukki fan ak juróom weeru février atum 2024 bu nu wootee ba nuppi Mame Biram Waaj journaliste chroniqueur ca Walfadjri moo ni waxee ci biir yor yor bi libération booba jamono dinu wax li avocat Ousmane Sonko yi sàkku ci Cour suprême mi war a yey yàbbi tey jëm e de parrainage avocat suprême daal di wax ne rek DGE amul sañ ñu jël dogal wu ni mel waaye loola yéene kaay bi ne agent judiciaire de l'État àndu ci woowale taxawaay it la yéene kaay wi ci procureur général ba doonte waxagut lu mu bëgg tey itam kàddu gu mujj gi àttekat baa ko yor ngir teewe booba boobaleb àtte Juan Branco sàkku na ci Antoine Diome mu may ko sañ-sañ yu ñëw ci réew mi la Le Quotidien yëgal ñu ko ne ñu avocat bi nekk ci contrôle judiciaire ndax ni mu duggee ci réew mi te nu daanoon ko ci bind na bataaxal ministre de l'intérieur ngir mu may ko mu ñëw teewee àtteb bi libération di ñu yëgal ne chambre d'accusation joxe na àtteem ci mbiram Aliou Sané libération ne nu contrôle judiciaire ba ca boppam la nu xutti loola waral coordonnateur yanamar di itam vice coordonnateur bu f dellu kaso Vox Populi dëggal ko ne fa fanaan bi ñeneen ñu fanaan seen guddi gu njëkk kaso biig source a nee na mooy ñañ tuumaal ca bus bañ taaloon ca Yaraax Aliou Gueye ñu gën ko xam ci jéego footballeur la Malick Sy mécanicien Ndiaye Dia commerçant ndodd ay tuuma yit libération ne fisc teg na ko ci kaw Grand Moulin waral muy sàkku ci moom mu fay fukki milliards ak ñaari toftal juróom fukki million juróom benn libération ni ab contrôle fiscal moo wone ne Grand Moulin de Dakar la mu waroon a fay fayu ko yemook l'observateur dinu xamal ni ngir defar gaal tey daa fay juróom-ñett jàpp fukki milliards ak ñeent li waral mbir mi dox nag yéenekaay bi nee na mooy émigration clandestine ndax gaaye bu nuy dem bitim réew jaar ci géej gi ca gaal yoo ya la nuy dugg l'observateur it dugg ak ñun ci gox yi sibiru bi sonal lool waaye l'info dafa mel ni ku naan li sonna réew mi kay mooy cancer du col de l'utérus ak cancer du sang yeggee ñu ay xayma yu raglu yu jóge ci docteur ma Guénoune Bouliska mu ne cancer wu ween mooy ñaareel bi gën a am doole ci Sénégal te gën di faat at mu jot nee na junni ak juróom-ñetti téeméeri nit dana leen dal juróom-ñeenti téeméeri ak juróom fukk ak benn ya ñoom ñépp dañuy faatu docteur Mamadou Diop ne canceru butitu njurukaay bi faateewul nii ci réew yi am programme de dépistage maanaam ñuy saytu nit ña balaa bee yey mbuus booba jamono ci le témoin ay soxna yu amee woppi cancer di nettali nanuy dundee seeni feebar métit ya mu àndal dooleeku ci jafe-jafe yi ñu am ngir faju ndax garab yu cher ak traitement bu yàgg woy politique yi fi yàgg la ndaw ñu bëgg a déjjati ci élection présidentielle bi nu dëkkmal enquête moo ni gisee joxoñ ñi dugg bees ci làngu politique gi te bëgg a foqati yëf yi ci mag ñi mu njaay siise mel ni ku naan lu jaadu la ndax classe politique bi dafay yees lu waat ñaar fukk jàpp ñaar fukki at ak juróom yu ne tey nag nee na kenn mënta wax politique te tuddoo ci ndaw ñi loola la koy dëggal mooy taxawaay bu bees wi ci làngu politique soppeeku lool ca discours ba mu yëkkati démb ba muy jébbal njiitu réew mi rapport au conseil du dialogue social Innocence Ntap Ndiaye réew mi quotidien ne fësal na ca xayma ak liggéey ak taxawaay bu am solo wi nu am ngir dal am ci réew mi yéenekaay bi niki yeneen xëy wax ci génnuk àdduna Momy Seck Gueye yeggee ñu njaaluk njiital groupe promo consulting Mbagnick Diop jëm ci Bougane Gueye Dany njaal mu ànd ak ay ñaan ngir soxna Momy tàbbi àjjana la ñu réew mi quotidien yeggee loola it la ko la tribune di ñaanal tàggoon ni kim jàppee